Euh, bonjour à tous daleen ak jàmm ci seen actu du jour ñu dooree ko tey ak naqar gi dal ci kaw journaliste yi ñetti reporter yu leeral point net ñu ñàkk seen bakken ci ab accident ñeneen ñaar ñoom am ay gaañu yu métti métti ña nga foofu rekk ca hôpital ginnaaw bu président de la république doon def tournée foofu ci Kédougou ñu ñàkk seen bakken nag euh, muy Abou Ousmane Sy di ab journaliste Mamadou Yoro Diallo di ab caméraman Ousmane Ndiaye nekk chauffeur leneen di booy Djiné mi nga xam ne nag daal dinay àddu ci évasion boobu ci prison bu Camp Pénal moom nee na nag li mu bëgg rek mooy ñu daal di koy jugé mi ngi wax ak autorité yi ne dossier yi nga xam ne ñu ngi ko teg ci table gi nañu ko rek daal di euh, gindi mu xam fa mu féetee ginnaaw muy wax ak suñu naataango yu nekk i rajo booy Djiné nee na bés rek bu ñu wootee li nga xam ne moom mooy dossier wam dina daal di ñëw euh, taxaw waaye dawul ci dëkk bi benn yoon te dossier bi la nag atum 2018 ba léegi ndem si yàlla Samba Sall moom moo ko bañoon a may rek li nga xam ni euh, moom mooy liberté provisoire ak keneen ku am euh, jafe-jafe ak wàllu joon di journaliste bi di Pape Ndiaye euh, tëj nañ ko ñetti weeru kaso euh, moom Pape Ndiaye nag di journaliste ca Walfadjri quotidien tey ji nag ci altine ji la doon jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy juge bu tribunal de flagrants délits ginnaaw nag ba nga xamee ni teye woon nañ ko ci wàllum escroquerie tey ji ci jugement ba ki nga xam ne mooy parquet daal dina woon sàkko ñu tëj ko benn ati kaso parti civile delloo nañ leen seen xaalis waaye ay avocat ak daal nañu wax ne eh, Pape mi complot rek la ñu lal teg ko ci kawam complot yooyu eh, Pape di ko dëggal ndax nee dafa amoon rek ay jafe-jafe digganteem ak commissaire Sankaré waaye tamit ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye di procureur de la République ak ginnaaw nag li nga xam ne def nañ ko ca jugement ba ba ñu paree daal nañ koy eh, tëcc li nga xam ne moom mooy ñetti weeru kaso. Guy Marius Sagna foofu ca Nianing ginnaaw ba mu fa demee nak daal dinay profito waxaale ci mbirum étudiant bi di Sayer Kebe ginnaaw ba ñu koy tuumaal wàllum terroriste fan yi ñu téyewaat ko laata ñu koy bàyyi te nag ci jamono ji ma nga ci hôpital boo xam ne day rek saytu wàllum xel ndax xelam dafa sutante ba mu génnee ci réunion bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ak waa coordonnateur yu mouvement Y'en a marre wax na ne rek nañu bàyyi Sayer Kebe terroriste yi mooy ñi nga xam ne dañuy sàcc alalu askan wi ay doomu président Macky Sall agrégé mu làq doom euh, dóor dóor loole tax nag activiste bi ak délégation ba mu àndaloon ca Nianing nee nañu rek nañu rek bàyyi ki nga xam ne moom mooy Sayer Kébé waaye ñoom dañoo mujjee wàññeeku ndax gendarmerie bàyyi bu leen ñu jàll jeexale kook wàllu politique diggante Aminata mbeng njaay ak xalifa Sall moom nag di njiital conseil collectivité territoriale daal dinay rek euh, profito euh, ci ba muy rek jaale xalifa Sall mi nga xam ne ñàkkoon na yaayam moom nee na Khalifa Sall socialiste lay doon te it moom lay mësa doon ci kanamu Bamba Fall ak Barthélémy Dias mi nga xam ne ñoo bokkoon njabootu socialiste wax nañu ne euh, seytaane rek moo dugg ci digganteem ak xalifa Sall jour fii lay am yam ak yéen ba suba incha allah.